day jékki-jékki rek débarqué mbaa du ñëw débarqué après nga changé su doon loolu bu ah. su ma yaay noppale ko mu jël téléphone am jaale ma jaalewu la jaalewu la jaalewu ma danga ko ci mere non du ko ci mere noonu la ah. tollu moom waaye man tolluwu ma noonu moom noonu la toll mais mais mais dafa xanaa dafa am yaa yaa ma ne fa da ngeen am une relation d'affaires une relation particulière amul benn relation su ma su attention may ma ma euh, kii Marème fay su ma soxna xarit la muy Macky xaritoo boobu nag su ko neexee moom mu dog ko mais xaritoo bi man dinaa ko téye mais su ma position politique c'est autre chose bokkul ak ay affaire xarit lii c'est l'intérêt du Sénégal te su ñëwoon ci man laaj ma dinaa ko wax donc Marème fay su ma soxna xarit la amul lu ma koy juger sequñu dara lu dul suñu jabar mais pas de relation d'affaires amuñu benn relation d'affaires moom elle fait des affaires donc. non mais c'est une citoyenne elle est libre. elle fait des affaires. non ma ndax je demande si vous n'avez pas une relation d'affaires. parce que dafa ni yaa ngi mën am na loo leen relation bu particulière boo leen sekk. parce que respect rek. voilà respect la su ma soxna. comme je donne respect à tout toutes les femmes de mes amis respect boobu laa ko jox waaw. mais au moins nit soo leen dëkkee ci réew ngeen bokk ko lu toll ni ndeyam. faatu te ngeen séq dix ans jàmm musuloo jàjj ci dara musoo ko dégg ci dara lu ma lay fii au moins lu ma jël position politique jëkkëram woo ma en tant que collaborateur ancien collaborateur wala moom ci boppam woo ma jaale ma suma yaay ju baax jooju. yàlla na ko loolu suñu suñu suñu kii la. Euh, suñu.